li doon xew jamono yi nga xamante ni Sénégal tubaab yi ñoo ko notoon nekkoon fi doon njaay doole doon fi jëf ay jëf yu ñaaw te li ñu doon jëf lu ci bari ñu bind ko bàyyi ko fi bokk ab dëkk ngi nii boo xamante ni ay jullit xàqan ñoo fa dëkk ay jaamukati yàlla di dëkkub alquran nekk ci njàmbur ñu di ko wax ñoom la dëkk boobu am na lu doxoon seen diggante ak asona bu mag boobu doon fetel te la ko waraloon mooy Sidiya Ndate Yàlla moo waajuram Ndate Yàlla Mbóoj ba ñu amee ay jafe-jafe te dem ñoom rek fetel bu doon na sàkku ci waa ñoom rek ñu génne leen jébbal leen Sidiya moom ba nga xamante ni bind nañu waa ñoom rek leesal sëriñ ñoom rek Serigne ant di Dikello moo doon sëriñ ñoom rek waaye dafa sëggoon silmaxalawoon la woon maami Cheikh Moustapha El moo yoroon baatam yoroon mbir ya muy tafsir Maxtar Binta Lo bi nga xamante ni tubaab yi yónnee nañ fa di sàkk loolu ñoom it bind nañu leetar Faidherbe ngir tontu kon li xewoon ci diggante waa Ñomre ak Faidherbe moom la ñu fas yéene leen a indil ci ay ay pàcc ay épisode te yii nag mooy pàcc bu njëkk bi premier épisode dañu sukkandiku ci journal bu ñu doon wax journal des débats politiques et littéraires surnaaram bi génnoon ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru avril atum junni ak juroom ñett téeméer ak juroom fukk ak juroom ñett ab rapport a ngi ci biir journal bi ñuy xamal kilifa en France xew-xew bi nga xamante ni doxoon na diggante tubaab yi ak waa ñoom rek journal bi dafa wax ni ki nga xamante ni bi moo doon l'amiral di jëwriñ jëre woon miru marine ministre de la marine et de les colonies moom day jot na rapport boo xamante ni bii ci gouverneur senegal la bàyyi ko gouverneur ba moo doon kan Faidherbe ay rapport la yoo xamante ni bii dañuy nettali cong bi nga xamante ni bii songoon nañu ko waa Ñomre te nee nañu seeni soldat amoon ca ndam ñoom rek gu nekk ci biir njàmbur gouverneur di ministre bi nag mbir mi nii la demee maa ngi da koy netti waaye ñu bàyyi xel ni li nuy nettali nii ñaar ñi jote woon kenn ko bind muy tubaab bi mel ni rëbbkat bi dem loolu rëbbi gaynde fa mu jaar bu ñëwee moom moo lay nettali ne rëbb ma deme maanaam li tubaab di wax version rek ngay jot waaye gaynde ga ñu doon rëbb wala rab yi ñu doon rëbb ñoom nettaliwuñ la ni ya demee kon ni ma koy waxe rek lii de ay Waydare archive yoo xamante ni tubaab yi ñoo ko bindoon bàyyi fi nun nag defuñu ci lu may nettali kenn ku ci nekk nag na ko déggee yow yaay jëfandikoo sa xel waaye du ñu mukk dañuy wax ni lii tubaab yi bind mooy li wér déedéet day loo xamante ne xañ na ngir sénégalais yi xam ko dina baax noonu leen nag nii la ko tubaab yi bindee woon kenn ku nekk nag yaay jëfandikoo sam xel mu ni ko nag cong bi nii la demee cong bi nga xamante ni bii def nañ ko jëme ko ci ñoom rek di dëkk boo xamante ni bii ci njàmbur la nekk li ñu ci jublu woon mooy fayyu tuutal goo xamante ni waa ñoom rek tuutal nañ nu ko ak ay saaga yoo xamante ni bii saaga nañ nu ko ak ay xoqatal ay menaces yoo xamante ni bii def nañu nu ko ak mbir moo xamante bi, bii mbirum fipp lay gën nuru mu ni ko nag ñi dëkk ci dëkk boobu di ñoom rek ak ñenn ci dëkk yi ya ko wër lu toll ci ñaari weer ak genn wàll ci ginnaaw ñoo jëf jëf muy ay ak ay toroxal jëme ko ci sunu ndaw ya nga xamante ni bii ñoo leen fa yebaloon ñoom waa ñoom rek bi ñu jëfee jëf jooju toog nañu lu ëpp ñaari weer ngir may leen ñu xalaat ngir ñëw jéggulunu ci jëf yooyu ñu jëfoon waaye lanu bëggoon mooy may leen ñu xalaat ñëw jéggulu xam le ni ñoom ñoo tooñ waaye loolee nu doon sàkku ci ñoom bëggoon ñu def ko ñoom day defuñu ko ñoom waa ñoom rek daal nee nañu la ñuy wax mooy faalewuñu nu tooñu nu ñu itam ba dinu tinu loole nag ba mu amee nun nu daal di jàpp ni ñoom waa ñoom rek nee nañu nun tubaab bi amuñu fitu jóg ngir dal ci seen kaw walla dem ñoom rekk ba loolu tax na xamane gi ñu doon woon saa bu xëyee rek dafay yokk loole nag ban ko gisee leen ni dafa jar nag kon léegi ngir nu laver ngir sunu dignité won wa ñom re di len nak nun noy nota kon yi len ngi def dono wara jog ngir safar lolu ngir sunu yaxantu gi di sunu commerce gi nga xamanteni tuwa bi luñu massa def ku ñu mësa xéxal seen comptoir commercial yi di seen kër yaxantu yi rek lañu bëggoon nu muy doxé nak kon lolu motax nu wajal ngir dem xisaab leen baatub sàcce ci tubaab dana war a méngoo ak xisaab kon ñoom waa ñoom rek nanu jóg dem isaabi leen mu ne nag mbirum ñoom rek la fa xew du mbirum politique de déedéet mbirum politique bi nga xamante ni bii moom la ñu jóg doon ko doxal ci Sénégal te loolu mooy ar nit ñu ñu li nga xamanteni ay jambour lañu di ay baykat ci nar yi nga xamanteni dañuy jog di leen song di nungu seeni alal ak addukalpe yi jog di leen seeni alal rawatina nit ñu ñu koy def di jël yi sëriñ si ak kat yi nga xamanteni bi duñu ay kat nun li nu war moy ar leen ci caddo yi nga xamante ni dañuy jóg ci lël seeni alal di ko nungu mu ni nag moom fédéral bu mooy wax ak ministre bi mu ni ko ñoom rek day dëkk la boo xamante ni bii mooy dëkk bi gën taaru ci walla bokk na ci dëkk yi gën a taaru ci njàmbur nun nag dëkk boobu di ñoom rek euh, nga xamante ni mooy dëkk bi gën rafet mooy dëkk bi ñu gën a am fuñ ko teg gën koo considéré ci dëkk yi am ci réew mi yëpp dëkk boobu di njàmbur ay sëriñ ñoo ko dëkkee ak ay sàmm ak ay béykat te ñoom ñoo ñu dee jàmm rek lañ bëggoon a am ak ñoom musunoo xalaat ni danañ seq ak ñoom lu dul jàmm jàmm ak xaritoo moo mas a dox sunu diggante waaye xalaatu nguyaay indépendance bu ñu bëgg am ñoom waa ñoom rek tax na jullit yi ñu doon ñu gis seen bopp ba tax ñu jóg bëgg jàmmarloo ak kilifteef yi nga xamante ni yilif nañ ko réew mi am na ay benn benn ay nit ñoo xamante ni bii bëggoon nañ leen a aar danoo jógoon ngir aar leen waaye nag nit ku ñuul dafa gaaw a gis boppam ba tax na ñoom daal ngir ñu nungu noteel gii ñu leen not loolu mooy seen jafe-jafe ndax ñoom dañ noo yàgg a jàppe nun tubaab yi ay yaxantukat rek ay commerçant rek yoo xamante ni nga jóg ñëw yor seenum njaay di ko jaay mu ni nag loolu nga xamante ne bii moo doxoon sunu diggante ak ñoom ak gis-gis bi ñu amoon ci nun mi ngi doon wàññiku bis par bis ndax am na ñeenti at ci gannaaw mbañeel googu yaatu woon na lol demoon na ba egg fi nga xamante ni kanu yi buñ ko taalee dana leen mën a jot soriwul woon dara ndar ñetti at a ngi ci gannaaw muy gën di randu ba gànjool ak tuube nga xamanteni seen digënté ak dara ci ñett wala ñent kilomètre lay toll ñaari atan ci gannaaw dëkk yooyu loolu jóge na fa dem ba paal ba ngiit nga nah, xamante ni seen digganteeg war naa mat fukk wala fukk ak juróom ñoom lii lañ doon wax xam naa moo ëpp ab kilomètre waaye li mu koy ëppee du bari mu ni ko waaye ba ci at mii jàll paal ak njiig ba tey jii sax boo xaajoon njàmbur ñeenti xaaj ya nungul nañu ñu jébbal nañ ñu seen bopp kon nungu googu nga xamante ni nee ñu ma nga tàmbalee woon ci Gànjool ak Tuubee day yaatu di yaatu ba njàmbur boo ko defoon ñeenti xaaj ñetti xaaj yi jébbal nañ ñu seen bopp mu ni nag mu ni ko nag ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo jóg ngir fippu bëgg a jàmmaarloo ak noonu dañoo jógaat nag ngir wonewaat njàmbaar gu bees te ñooño seen gëb la gañu tànn ngir jëf loolu mooy ñomre ak tanim tanim mooy dëkku sëriñ maxtaar bintaloo tafsir maxtaar bintaloo nga xamante ni nee nañ tanim ak ñomre ci ñaar fukki lieu ak juróom lay tollu digeentem ak ndar mu niko nak ñaari dekk yoyu di tanim ak ñom lay nak ñom lañu jog ngir songi leen mu ni njambur njambur yi di wañ njambur ñom ay niti l'islam lañu ñu yag ci l'islam lañu bari na ci ñoom ñu jàng ñu dégg làkku arab lool loolu sax li koy firndeel mooy ab leetara ngi ni boo xamante ni sëriñ ñoom rek moo nu ko yónnee tontu nu ci leetar ba nu leen yónnee woon ni leen nañu ñëw tuub jégglu li ñu def leetar bi ñoom tubaab yi ñu ngi yéem rafetaay gi arab yi rafet leetar bi tafsir maxtaar Binta Lo moo ko bind bu ko ci biir leetar bi nag doo xam lu ñu jublu ndax dañoo ànd rek nun wala dañoo kontar ndax mbir mi ñoom fañ ko wéer ci biir leetar bi mooy li waral mbir bi mooy ku fa làqutu muy Sidi Ndate yàlla la ñu bëgg moom la ñu bëgg ñu jox nu ko te moom Sidi Ndate yàlla moom mu doomi ndeyam di Elli Njëmbët nga xam ne Njëmbët Mbóoj ak Ndate yàlla Mbóoj ñoo bokk ndey ak Njëmbët di yaay Eli Eli bayam nar la ndata yalla di yaay Sidiya ndata yàlla mu ni nag nyom dañoo nyom ni Sidiya moomu nga xamanteni Eli njëmbat mo leen ko denkol ba muy dellu ganar, ci naar ya te nu bëgg koo jël moom lay wax ci lettre bi mu ni ko lettre baa ngi nii lettre bi mi ngi tàmbalee par subhanallah tudd màggu yàlla gi moom yàlla moom nga xamante ni moo wax ni ab dénkaane bul ko delloo ku dul ka la ko dénkoon bu fekkee dafa am mbuus bu ñu la dénk kuli sunu borom nee nañu bul ko jox bul ko delloo ku dul kële ko dénkoon ñoo ngi lay nuyu yow gouverneur ci turu waa ñoom rek gépp ñu lay nuyu yow borom Ndar ngir tontu lettre bi nga nu yónnee woon noo ngi lay xamal ni nun day ay jaami yàlla lañu yu koy topp ay jaami yàlla yoo xamante ni ku soxlawoo sunu ndimbal danañu la dimbali doxandeem bu jaaxle boo ñëwee ci noonu dimbali la ngir yàlla ak képp koo xamante ni ak ndogal wala métti métti wala musiba dafa jóg jëm ci yow nga sàkku ndimbal ci noonu dana nu dimbale ndax loolu la nu yàlla digal loolu itam moom lanu nu ci sunuy maam nun yàlla daf noo bind ngir nuy jàppale way néew gi doole yi ak doxandéem bi ak ñi ko yittewoo di ko def nag fii sabilillah rek ngir yàlla yàlla mu bari yërmande moomu nun daal loolu mooy li nga xamante ni démb tey ak suba nun waa ñoom rek ci la ñu nekk te mosuñu ci jóg mu ne ko ñi nga xamante ni mooy buurub Tarassa jibnaar di kilifa walla yow gouverneur moomu bu ngeen nu sakko ci non ngir nu jëfe lu ak li nu sunu borom digal lolé de dañ koy gantal dañuy lang sidi ya mi ab denkané la ta ab denkané nak kala ko denkon donc mu nga koy mëna jox waye do jël wala ab jambour denk nga jël ko diko ko kala ko denkul kon duñu joxe sidi tay duñu len ko jox tay duñu len ko jox ëlëk ndax du yéene lu ko dénkoon ndénkaane li ki nu ko dénkoon rek moom moo koy mën a laaj ñu jébbal ko yow gouverneur nag xoqatal yi nga ñuy xoqatal muy ay menace di wax ni dinaa leen def nangam dina leen def nangam loolu booy boo nga teg ko ci suuf ndax du tax li nu naroon ngir yàlla nu bàyyi ko te loolu teg ko ci suuf day mooy li nga xamante ni moo gën ci yow gouverneur mooy li nga xamante ni bii tam mooy li gën ci noonu maa ngi lay nuyu loolu mooy leetar kon ñoom tubaab yi ñoo seereel waa ñoom rek seenu njullite mhm. seenu sax ci lislaam leetar bu rafet bii ñëw wone ni ay jullit xaqan ñoo fa nekk yoo xamante ni ku ñëw sàkku ci ñoom dimbal danañu la dimbale ba ñu joxee leetar boobu nag nee na ci la ñu daal di waajal ay soldats muy la colonne soldaar yoo xamante ni ay junniy nit lañu ak junniy volontaire yu bàyyi ko ndar ak juróomi téeméeri volontaire yoo xamante bi ci li wër ndër banlieue ba fa la ñu bàyyi ko fa la ñu bàyyi ko volontaire mooy ñi nga xamante ni buñ mës a dégg ni xare am na kenn ku ne amoon nga sa mboq doom sa fetal da ngay dal di jog dem jappale ji tuwa bi ngir bu ñu songé ab dekk nongo alal ja nga man ja mos ñom du ñu won ay soldat ay volontaire la ñu won yo xamante ni bi, daal li ñu wax bu ñu dekk jël nak yak alal ja bëgg ci loolu moo ñu jël seeni fetal ñëw di jàppale tubaab yi mu ni ko nag ñaari fan ci weeru mars japp ñetti fan ci la ñu dajale soldat yi ci fa ñu wax ñalla xaar infanterie bi nekkoon gànjool di ay soldat ñoom it ñu daal di leen di dugal ci bato yi yoo xamante ni bato à vapeur la ñu matt ngay xam ba ngir bato bi di daw ci géej gi mu ni ko gawar gi nga xamante ni ay fas lañuy war na ñoom ak volontaires yi bato bi ñu doon wax boobu ville ci la leen dugal ak yu ñu doon wax pont de Laybara ci ñett fan ci weeru mars ci lañu dajale dund bi nga xamanteni mom la soldat ci wara dundé dunde yóbbu ko dëkk bi di njàllaxaar dund bobu dañ ko waajaloon lu jitu ci fan ye jallu dajale ko pal nga xamanteni ñako don ar muy escorte bako don escorter ay espace lañu ak ñi ñu doon wooyee compagnie de débarquement nga xamante ni kuñ doon wax monsieur Escarfet moo leen jiite woon doon ab lieutenant de vaisseau mu ni ko nag dëkk yi nga xamante ni bii nangul nañ ñu rawatina gànjool dajaleel nañ ñu ci ay fas yu ñu war fas yu pare bare bare lepp lu ñu soxla woon ci ay fas dal wa gañol ak dekk yu wër gañol te and ak ñun jox nañu nu lanu soxla woon ci ay waruwaay muy ay fas te fas yu dañu and ak seeni sam mu ni ko nak lolu tay lay jëk mi ngi am moo tax xew-xew bu rëy rëy rëy la ngir noonu te loolu daf ñuy jàppale ji gaawaayu soldaar yi bi nga xamante ni am nañu ay waruwaay yu doy loolu dafay tax nu amaat doole ju yees ba mën a song tay fanay xare ji lu mu sori sori amna nu waro ay doy amna nu dundu bu doy kon li wa gajol ak dekk yi len wër li ñu defal amna solo lol lu ko nak ñent fan ci wéru mars bi digg ba ci jotté muy midi soldat yépp daje nañu pal ñu feddali laat feddaliwaat leen ndigal liñ leen digal xamal leen ni leen ñii nuy songi dey muy waa ñoom rek ñoom kat tooguñu xaar lu ñoom rek ñoom di jóg nañu ñoom waa ñoom rek ngir ñëw daje ak noonu xoolal ma gi njàmbaar Faidherbe li mu yore woon ci doole dëkk bu mu jóg di ko songi ak njàmbaar tax waa dëkk ba au yi ñu toog xaar ci dëkk ba ba ñu ba ñu egsi déedéet bu waaj na Ndar ak i akub xarem ngir fas yéene songu si ñoom de waa ñoom rek ñoom dal di waaj ñoom rek génn ngir daje ji ak ñoom nee na loolu lañ ci jublu mooy fexe ba duñ egg si ñoom rek te ñoom day dañoo fas yéene xeex ak noonu xeex boo xamante ni du am noppalu xeexu guddi ak bëccëg lay doon loolu moo tax waajal nañu seenub xare génn nañu ñoom rek ba fii nuy waxe ak yéen ña nga nuy xaar Ngick Fall euh, soxna Binte Fall mi nga xamante ni bii mooy waajuru euh, waajuru soxna Aminta Lo dëkk bii di Ngick Fall fa la cosaanoo mooy ab dëkkam mooy suñ maxtaar binta soxna binta Fall waajuram njiig Fall gii la dëkk mu ni ko nag njiig Fall googu dey nga xamante ni ñoom waa ñoom rek génn nañu ngir ñëw ba foofa di xaar kilifa dëkk ba di kilifa ngiig daloon nañ ci kawam ñaari at ci gannaaw 1856 loolee tax na ba moom kilifa ngi gëkkat nee na waa ñoom ne man du ma ànd ak yéen ñu ko nag loolu nag teewul ñoom waa ñoom jëfandikoo nañu doole loolu leen kilifa njiig ni leen duma ànd ak yéen teewul jaay nañu doole ba dugg nañu ci dëkk boobu di ngiig teen ya fa nekkoon itam ña nga koy teg loxo ngir bëgg nu bañ a am ngir bëgg nu am jafe-jafe ndox kon nag war na noo gaaw ngir njëkkante ñoom dëkk boobu di Ngick Fall di dëkk bu am solo ci tong bi nuy song ndax kët diggante Paal ak ñoom rek Ngick joogu dong moo fi dëkk boo xamante ni am na teen yooyu li nu soxla ci ndox ñoom rek ñoo ko am kon war na noo gaaw njëkkante ak waa ñoom rek ngir que ngiig faal googu ñu bañ koo teg loxo mbokk yi li ñu cërle ci waxtu jeex na kon pàcc bu njëkk bi di diggante waa ñoom rek ak fédéral fii lañ ko yemale di leen jox dig daje ci ñaareelu pàcc bi euh, ay jullit xàqan ñuy jaamu yàlla ak liggéey ñoom tubaab yi ñoo ko wax nii ñoom rek ay béykat ay sàmmkat ay jaamukat yàlla ñoo ko dëkk ay lettre bi ñu bind ci jullit bu war a dimbali sa moroomum jullit ñoo ko déggandoo kon mbokk yi topp leen ñu ndax tubaab bi dafay nekkoon doon noté waaye am nañu li tubaab di wax seen ngor seenu njàmbaar dara mënta tax ñu jaay ko te ñooñu waa ñoom rek ci lañu bokk. kon noo ngi ziare Serigne Abdoul Aziz Touré xalifa Serigne Adi Touré di ko mboor ñor euh, di ziare Serigne Mountakha Bachir moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak mbokk yi nga xamante ni. fu ñu toll ñu ngi bàyyi xel seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV di ziare Serigne Ayoba fu mu toll mi ngi ñu yónnee ay message di rafet lu ñuy liggéey kon xam naa nuyoo ak ziare waa Ñomre dañu koy jébbal Serigne Ayoba Lo leen jox dox daje incha allah ci ñaareelu pàcc bi muy deuxième épisode waaye Faransé man na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 roy makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami Abdu